Euh, gis nga euh, situation bi euh, dafa nekk une situation bu exceptionnelle parce que daf ñu fekk ci benn environnement daf ñu benn conjoncture mm-hmm. sociopolitique mm-hmm. ci benn ñu jëm ci ay élections Sénégal nekk ci guddi gu bët si tëggul man dama wax ni que Lénine daf doon wax ni sans enquête on n'a pas droit à la parole c'est-à-dire que loo mën a wax tamit tant que enquête demul ba déterminer kan la rek comme li nga wax rek ku nekk da ngay xalaat kan la te xel ak li ci ginnaaw xel yëpp di xel xel yi kenn mënu ko xam donc man dama jàpp ni pour conforter li nga wax que enquête war na am ñu bañ a écarter benn piste ñu jàngat ko ñu xam kan la mm-hmm. ñu xam ñan la ñu xam ñan ñoo ko def mhm. loolu nag enquête moo ñu ko moo ñu ko mën a wan mais dama wax ni société sénégalaise la ñu war a ñun ñoo war a xoolaat suñu bopp ci lu bari wax naa ko sànq ñu éviter comme ni combat de lutte événementiel benn affaire bu amee ñëpp ñëw wax ci ñu wax ci ak émotion après mu jàll et c'est ça et Serigne Touba Cheikhul Khadim wax na ni que quand le mal se généralise il se banalise. Ah maanaam bu fekkente ni mbir dafa am. am di amaat nga am nga toog waxaatoo ci. Euh, ñëw nañ def ci manifestation nit ñi wax il faut ñu am des moments fondateurs. Mm-hmm. loolu mooy li njëkk a wax beneen élément bi mooy gis nga bu ñuy xool suñu société bi dafa am tamit leneen lu ñu dal mooy euh, post-pilatisme daf ci am post-pilate. benn waay la woon bi nga xamante ni ba ñuy ci bible moom moo yóbbu woon Jésus ba mu ba ñu crucifié ko après dafa pare euh, raxas loxo yi ci deret ba mu set ñu ne ko kan la mu ne euh, du man waxin la mooy toujours problème bu amee. suñu société ku nekk danaan du man kii la du man kee la keneen ki la hmm. tant que neewuñu ñun ñëpp ñoo responsable de ce qui arrive hmm. ñu dem vers des solutions du dem hmm. beneen bi nag bi dal maintenant suñu classe dirigeante ñun ñëpp muy ci à tous les niveaux football euh, politique économie journalisme tout lu am mooy ñetti mbir moo ñu manqué mooy ñàkk nañu courage maanaam dëgg bu taxawee boo koy wax da ngay seet dëgg bi ci ban camp la jëm ñàkk nañu courage ñàkk nañu sincérité maanaam dañuy wax ci kaw di wax ci suuf hmm. te Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum nee na Serigne Touba da ko wax ni ko ñett ñi moom yàlla nee na du ko bàyyi ëllëg mooy wax ci kaw wax ci suuf bokk na ci nga xamante ni toutes les religions relevées def ko bañ il faut que nit ñi bu ñu waree waxante ci penc ni ñu waxante teg ko ci teggin ñaareel ba nag ñetteel ba mooy confiance réciproque mooy Sénégal wóolante wuñu ci suñu biir may mun a ak njàmbaaram kenn du ko wax man lu ma xam la lu ma dund la mm-hmm. et je dois à la vérité de dire aux gens que Maïmouna fii lu mu fi dugal man damay wax ak moom te dam je lui dois ce témoignage la mm-hmm. lu mu fi dugal lu ko lew doom la parce que man xam naa dafay wax ak man ci lu bari il faut que les gens arrêtent de penser que nit ku jóg def dara ci lu baax teg une affaire ñu nekkat moo nekk ci ginnaaw. d'accord ça on doit le reconnaître li may wax nag mooy émotion yi nañ ko teg parce que gis nga dëkk bi mënuñu ko régler ci émotion. xët-xët bi wax ji nañu xam ni que on est à la croisée des chemins et falaay terminer j'alerte maa ngi alerte toute la classe politique les médias la société sénégalaise globalement Sénégal nañu def ndànk te xam ni que yegg nañ ci bul ma ba ma xëti ji bind naa ko wax naa ko lu jara waxtaan nañ ci toog waxtaan lu ñu war a faj nañ ko faj lu ñu war a leeral nañ ko leeral arrêtons de penser que ñun dafa on est on est un pays assez spécial li dal ñeneen ñi du ñu dal lépp lu dal ñeneen ñi rek mi ngi ci buntu bi lenn ngi ci biir kër gi et ça peut nous arriver la responsabilité nag est globale engagé ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf Maodo Malick Mbaye jiite groupe